donc gis ngeen ne. coupé coupé. voilà ñu avancé de l'autre côté. dem dem dem dem ko bet bu ko bet taxawal taxawal eh taxawal taxawal eh taxawal de taxawal taxawal dem taxawal dem taxawal eh non bàyyi télé amul may dem ñu dañu autonome dem bàyyi sëgg def yaa wala yaa ñu eh, eh, jël ñu dem jël ko jël ko bu la ma jël jël ko tey ma téléphone bu

kii dafa am liberté wu dem ku ko neex mais dama ne kii coono mais rek jël sa matériel nga téye ko. jëlee image bi yaa perte am bëri dafa daan wax nga def yaa ko tey daal. fa seenewul woon taxaw déglu la bu ko déglu. ñëwal xaaral xaaral jëmm sama saa tool yi ak ki mu ma lan dem. na nga tudd kii. loolu dara dafi woowu. taxaw yii yëw. voilà internet yi comme ñoo ko Wala yan, alam ko na ko loko. Ah, nga suba yan yo? Dégg nga li ma leen wax. Boy, dégg nga li ma leen wax. Sëkk Prasser. Boy, dégg nga li ma leen wax. ma lay wax ni barki alxuraanu kër. man seen jàmm laa ko wala tayoo ko. non dégg ma seen jàmm laa ko. dama ne ndax yow li nga dóor yaa ko tay wala tayoo ko. <laughs> dama ngay door. déglu ma la arrêté sa vidéo. waaye bu la muy arrêté vidéo. Filmé. taxawal taxawal taxawal taxawal eh. waaw. kii complice la. kon ngeen di tuuti rek ñi nga xam ne sécurité moo doon doon téléphone journaliste léegi nii di sas ay étudiants dina xam naa dina xaw a jax. ah ah dégg naa bàyyi ma noonu waaw. defal sa liggéey ba ñu akara mais dama la ko wax am ko ko ko indi